Thank you. léegi nan la dama ma jàppee nag sama day dem damay déliré kii moom daa amul joomu koor rek yow yaakaar nga ne koor gi moom tëdd jóg tëdd jóg tëdd jóg mooy moom la eh, sa caay nga mel ne jàkkatu gerte xott noonu dama laa wax dëgg nag da ngaa ñàkk joomu koor dafa am lu ma jaaxal ci moom ci weeru koor gi dëgër bopp bi mu la dikkee man moo ma jaaxal man dëkk bi wàcc dëkk bi daal wàcc na ba dëgër maa la ko wax maman lan mooy dëkk bi wàcc na ba dégere lan mooy. dégere laa la wax nii nii laa lay tegal nii. laa ilaha illallah yéen lii di dëkk bi dëkk bi di wàcc nii almadi di toj nii yëgu leen ko yéen. waaw yaay daa ni maman naa la yor waaw waaw actualité li xew laa leen di wax yow xàmmee woo kii. kan nga waxal ma. waaw jaar sama tur. ah kon jom. xàmmee woo kii Viviane mii. ah Viviane Ndour mii nekkoon waaye kii jabaru. Ndiaye Wade man jabaru Bouba Ndour mu TFM Viviane Ndour moo jënd TFM cinquante millions. milliards tamit damaa jum cinquante milliards. laa ilaaha illallah. waaw gën a ca tarante la cinquante laa la wax dama gisagul man ba. Viviane a ngi nii xoolal Viviane a nii xoolal kii di yore muus bi nii papaam papay Viviane papay Viviane. mais Viviane papam maa ngi mën maa ngi nii. gis nga kii yaa jàmme la Cameroun la dem. xam a bu bëggee ñu comprendre da ngay def naan da ngay def naan quoi. waaw nga man yi may wax damaa bëgg nga koy xotti indi sa loxo ma wan la. Viviane Doura kii Viviane a ngi nii papa jaa ngi nii moo jënd tey FM 50 milliards bu moom du amati fu mu jëm Philippe mooy nekk kii bi directeur TFM xoolal ma kii. Yaya Jammeh moom jóge na Gambie yow yaay ñu naroon koo bombardé nee na dafa jóge dem Cameroun moo nekk léegi président Cameroun. waa doom yaay man xamul lu ma gën a jaaxal. man ñi mu lim ñooñu ñëpp man dama leen a séenul ci biir journal bi. saa xam lu ma gën a neex ci wax ji. Uh-huh. maman Taïf. fenu intellectuel dëgg la fen tey moom fenu crack moo gën a neex ci fen yi Viviane Ndour kañ la papaam décédé woon moo ma jaaxal boobu <laughs> nag xam nga la la fi indi yooyu noonu nit ñi di jaay mburu ak caaf ci mbedd que <laughs> yow dëkk la ma la ci réer. ñu jóge Paris. waaw mënu maa ree waaye damaa woo damaa. décortiquer ko ko. waaw waaw déglu ma déglu ma rek. yow eh ah yow. dama laaj dama laaj. yow puissance xamee woo kii ya. fii kenn xamee wu fi kenn. waaw ñoxal ma puissance yow xamoo dara yow. joxal puissance ah mu ne kii dafa mel ni. bu kii bu bu bu yaar waat dama leen doon nekkee seen. xëntu ko kay yaa yee xëntu ko. waaw maman foo jëlee information bi. Viviane Viviane bu laay waat kii tubaab la kii dëkkul sax si réew mi. kii du Viviane kii du papay Viviane bi fii. ki soleil yi bitim rew la sen mbalit yi ñuy jël di sandi Afrique sen mbalit yooyu mi dajale sandi ko Afrique mo nekk ni mo ma wax la benn affaire nak jour ba nga koy yóbbu muy jangi jour boko sam pap di yob muy jang ay kayitam da réeroon uh-huh. mais naka la egg fenal ki ko don jangal moo tax 9h la duggu ñu dakh ko 10h mo tax li bettuma ci mom ya may netali yow ya may netali waaw ba ma ba ma yow jàngoo. bi du li jëlee ri la damaa romb li foofu noonu si mbedd fan si mbedd mi ci nga jënd ko liiral ko sa bopp ma ne na ma ko liiral Ahmed Diop man kër Diop Diop Massi meen Ahmed Diop mi toog si bopp bi nga xam ne jàngul jàngaarul boobu Diop Massi xam ne njàngum géwél lan jàng na heures lan dugg ñu dàq leen dix heures <laughs> kindering ah! tam ko tooti tam ko ko tooti

jàng day feeñ ci boromam de ku jàngul ak ku jàngul bu ñu ko gisee dañ koy xàmmee. yow de macha allah. war ngaa aay de waa kii moom du Viviane. Viviane la Viviane ah Viviane teewam bii. tu connais Viviane. ah ba tu connais très bien sax. moom daal. gisoo moom la bind fii moo jënd TFM démb. ah moo jënd TFM démb. moo jënd TFM xoolal ci Youssou Ndour la ko jëndee xaalis bu bari. gisoo xoolal euh, Bouba Ndour xam nga ko. waaw waaw waaw. moom nee dootul liggéeyati TFM <laughs> ndax xam nga moom Viviane moo doon jabaram. waaw waaw nee nag Viviane moom du ko jiite. ah man ko ah mais ah. ko dogal waroon daa mën a toog. artiste nag bu fonkee liggéeyam du daanu waaye moom daa defar ne yàlla dogal ne artiste bu daanu la. Mhm. xam nga ne fa mu toogee ba fi Viviane jënd TFM. Ah. ah Philippe Ndour war a nekk directeur. ah ci yoon xam nga ne waay waay. mais gisoo gisoo moom. mooy mooy mooy papa Viviane. moo yor moo yor muus mi nii. naka jekk ma xam ne nduroo nduroo am na. nduroo dafa am. ah Viviane ak papaam de benn lañ. bi mu yor. allah tey bi moom waxuma la lu waxaale wu ma sax lu mu lu muy diwoo moom. xoolal chaque semaine chaque semaine day fay ay millions yu bari pour bi rafet ah, ah, ah. xam nga di di di teew Sénégal. yow daal jàng am solo ndekete ah macha allah waay. gis ngeen waa Sénégal waa àdduna wërndal képp sax laay wax information bu faussé la rek waaye yow Ameth Diop nga xamante ne taas mbag ki ndëriñ rek nga xam yow duma la wax leen ba ma jàpp la yàgg-yàgg daje